boo xamee ni euh, jot naa ko euh, waaye dama koy vérifier ci seen kanam euh, dem dëkk bu ñu naan Ndar fekk fa sunu correspondant ba fa ne di Ousseynou Diop Ousseynou ñu ngi lay nuyu mbaa nga fanaane Pape di la bu baax dafa am loo xamee ni dama ko dégg ma buggoon ko vérifier nga doy ma ci lool mm-hmm. ndaxte yaa nga Ndar actuellement ana El Golbert Diagne waaw euh, comme ni ko ñëpp yëge rek euh, démb ci booru ay euh, ci guddi dafa amoon tuuti jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram bi ñu ko di hôpital nag tey jile ci suba si la mujj wàññeeku. Golbert gaañu na. waaw waaw moom mujjee na ñàkk nam tey jii. maar de mu doon nag loo xamante ni mën naa jàpp ni doo xama sax ci turu famille waaye turu collaborateur lay waxee. Ah. léegi la am ci li nga xamante mooy suba si. mu doon nag loo xamante ni wax dëgg yàlla lu metti la ndaxte ku nekk xamoon na liggéey bi nga xamante ni doon na ko taxawal ndar ak li nga xamante ne wax dëgg yàlla noonu la àndewoon ñëpp ci jàmm ak salaam. li ma li ma xawoon tiital ba bugguma ko woon sax gëm benn ndax suñu jur la moom El Hadj Golbert mm-hmm. Diagne bàyyu malal ak suñu bàyyu ñun ñii. yaa a mm-hmm. un mois si je ne me amoon na ay rumeur yu ñu doon génne ci internet bi. Euh, mm-hmm. ni euh, moom golbeer dafa euh, décédé ndeke du woon dëgg loolu moo taxoon góob ma information bi noo waaw loo loolu am na parce que xam nga rek nit ñi am na ñoo xamante ni ñu ci bare dañu joxe ay xibaar yoo xamante ni amul. Mm. moo tax la plupart tamit ñu ngeen def da ciy baax. Mm. ndax Golbert bu fekkee génn na àdduna yaakaar naa ni àdduna bi yëpp war nañ ko mën a yëg. Mm. ndax liggéey bi mu doon liggéey di pour ndar képp ñëpp la ko defal àdduna bi yëpp la koy defal. tey moom mënuñ jàpp ci ndar moom jàmbaar pàqati de dëgg-dëgg moo wàcc liggéey. Pape man mii di wax ak yow man ci rajoom laa ne maay rédacteur en chef bi moom laa nekk depuis presque quatorze waaye nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla kenn mënul am looy natable ci moom nit ku mat sëkk la nit la koo xamante ni ku wér la ko dëgg tey moom dañuy jàmbaar dëgg dëgg moo gaañ voilà merci Ousseynou ñu ngi lay euh, ah, gërëm bu euh, baax ci information boobu nga ñu confirmeel foofee ca Ndar ngay liggéey ak moom euh, di rédacteur en chef u rajom Alaaji Golbert Diagne suñu baay boobu la nga xamee ni bi mu tàmbaleek léegi mu ngi bëgg yàgg ci rajo ràññee nañu ko ci ci homme de culture bi mu doon ràññee nañu ko ci ci wàllu tàggat yaram itam ràññee nañu ko ci diggam ak groupe Futur Média dañu ko ci yàgg ràññee ndax relation bu particulière boo xamee na ko ak sunu kilifa euh, di euh, Youssou nduur euh, ñu leen di wax ni ab tiis la boo xamante ni dal na ci ndodduk Sénégal en période de crise di crise coronavirus bi faf malheureusement ñu dëggal léegi nii génnuk àddinaam moom Golbert Diagne